essence xam nga moom daf may inspiré nag. <laughs> daf may inspiré waaye waaye café bi mënul permettre. waaw yóbbu sa café na ku nekk yóbbu yëfam rek jël leen seeni café daal waaw jël leen <laughs> ah jël leen seeni <laughs> léegi yow Cheikh Tidiane Gomis. ah man ah, daal di la bàyyi nga commencé waxtaan bi. comme que tey ji xam nga ah. rek euh, waxtu bi daf ñoo euh, dab. Euh, dañuy wax rek loo xam ne c'est historique. Mm-hmm. historique ci lan moom mooy euh, euh, Tëngéej football club euh, moo gën a ndaw ci bu Sénégal yi moo fi def benn exploit bu rëy ki gën a mag ci clubu Sénégal yi moo fi defoon ay exploit mooy GIA moom mu ñëw ñëw depuis 2004 ba léegi ñaataat la 2004 ça 16 ans 16 ans 16 ans après taaw def caat ñëw def caat bi moom mooy Tëngéej football club def exploit man Cheikh Tidiane man mii bu dee dëgg la dama koy wax man mii gëw moo nekk Tëngéej dina def exploit bu dee dañuy wax ak dëgg waaw parce que ki mu doon dajal c'est un habitué de la coupe d'Afrique des clubs surtout Ligue des champions moo ko ëpp alal foofu moo ko li nga ko ëppale sax dafa baaxee club sénégalais bu mu taseel defal la affaire. doo dégg la ma la wax moom tëngee mu ñëw def loo xam ne mais ci loolu yëpp il faut que ku xam équipe bu tëngee boobu nu mu juddoo. di nga xam ne euh, président bi dafa def moom moo def exploit. parce que booy xool on se rappelle bi équipe bi nekkee troisième division bi muy jël équipe bi. Mm-hmm. équipe bi mu ngi woon troisième division. Mm-hmm. équipe bi Jokkul FC la tuddoon. Mm-hmm. la première des choses mu changé nom bi mu ne pour que waa Tëngéej yëpp waa Rufisque gis ci seen bopp mu ne de koy tuddee Tëngéej football club nu mu tudd waa ji euh, Babacar Ndiaye il mu jël mu change li mu njëkk a def dans sa tête mu ne dégg lu ma wax ne mu ne euh, troisième division laa nekk dans dix ans dégg mu ne dans dix ans dans dix ans euh, équipe bi dana dem Afrique. Hmm? dans dix ans équipe bi dina dem Afrique app bi at matul sax huit ans la def en huit ans mu dem Afrique xoolal loolu en dix ans moom daf ko jàpp mu ne dix ans maa ngi leen koy wax yéen ñii dix ans équipe bi dina nekk africain et dina def exploit en Afrique et app bi huit ans kese la. Hmm. chapeau huit ans la wax je te huit ans la. gëm-gëm la. huit ans la def au lieu que de dix ans. Mhm. processus bi mu jëloon kii bi mu jëloon li mu njëkk a def moom moom mooy li ma leen doon wax léegi changer le nom deuxièmement moom mu ñëw il a mis des moyens. effectivement qu'on se dise la vérité. Mhm. ce qu'il a fait ce sont des moyens moo koy def. bi équipe bi nekk amateur championnat amateur il est le seul. boo xam da doon fay salaire comme équipe bi biñ nekkee amateur. amateur. Eh ñuy fay ñoom ñuy fay moom muy fay salaire salaire bu tardé et salaire bi gënoon a ndaw bi gën a ndaw moom c'était cent cinquante mille. joueur yi joueur doo dégg li ma c'est lui. Ah, c'est lui qui l'a fait mu ne lu tax bu sax mu ne non lii source de motivation la. absolument. et fu mu gis joueur bu baax mu dem loxati ko indi ko signé la ko contrat signature contrat xam nga lu mu lay wax un million mu ngi si bi man maa ko waaw ah un million mu ngi nii si table signé pour signer contrat rek am ma jox la un million nga signer contrat joueur yi entraîneur dafay entraîneur un million par par mois. oh moo tax moom mooy résultat bi moo joxe résultat bi. voilà le résultat aujourd'hui fi Teungueth Football Club nekk. moo ko may résultat bi gëm lu muy gëm. et c'est un jeune c'est un jeune. il est jeune il jeune waaw. Babacar n'a même pas quarante ans. non loolu mënul nekk. au nom de yéen athlète Babacar Ndiaye. mu def jaloore loolu dégg du xamul nga Mbaye Ndiaye ñoo. dama doon yëkk tur yi rek. Mbaye Ndiaye Ndiogo euh, bàjjanam la. Mbaye Ndiaye Ndiogo bàjjanam la. mais qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Euh, maanaam maanaam. ci wàllu ci wàllum sport bi daf ci am expérience wala wala dafa bëgg football nii rek. non daf ko bëgg. parce que dafa yàgg nekk Tëngéej. Euh, kër yi kaw bu sax mu nekk ci ci nawetaan après nawetaan mu njëkk jox B2. B2 uh-huh. toog gañewul daara mu ñëw jël b gagné ko mu ne léegi pare naa nawetaan maa nga ca kaw. est que. regarde xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal dimension boobu mu jël. Mhm. xoolal loolu foofu mu jël. il arrive premier club mu ñëw li mu njëkk def xam nga lan la mu utal club bi siège siège fonctionnel du siège u tappale yooyu de. xam nga am na siège yoo xam ne da ngay dem foofu doo fa fekk sax doo fa fekk sax. siège mais moom siège bi. l'intendant l'intendant à son bureau comme ce qui se fait en l'intendant dama ne la l'intendant à son bureau oh. soo duggee da gis affiché porte bu nekk intendant directeur technique entreneur directeur loolu yëpp ngay fekk ci loolu donc ce qui veut dire dafa commencer avec ses maigres moyens parce que loolu la léegi nag mu fexe ba dafa exploit boobu hmm. tey jii nag man ci plateau bi laay profité occasion léegi nag di koy li may kii moom mooy di leen di conseiller ñoom parce que am na ñu bare ñoo xam ne dem nañu ba étape bi toll ba étape bi ils ont fait fausse route avec li ñu gagné parce que lii qualifié bii ils auront dans leur caisse au minimum benn deux cent cinquante millions bu ko kaaf du jox plus chaque match ils ils ont ils jouer six matchs et chaque match dañuy am rentrée d'argent en tout yëpp ils vont avoir lu mu déedee benn cinq cent millions et cinq cent millions léegi nag ñoom ñi doon jooy moyen doon jooy ay kii occasion parce que moom occasion la pour moom mu mun a souffler waaye nag na ko teg ci ay affaire yu leer waaye nag lañ ko may jàmm de ah dañ <coughs> ko may jàmm parce que parce que bi muy xeex. Ah. di reyante ci club bi ca ah. njëlbeen. Ah. selon yow li nga ma wax nii. nañ ko may jàmm. parce que nit ñi bu ñu déggee commencé xaalis rek. nit sàngam eh, dina dugg ci équipe bi. dañuy fàtte commencé di mm-hmm. critiquer wala di def ceci wala cela alors que bi mu mettee. moom moo doon moom Babacar Ndiaye moom. moo doon jël alalum di ko dugal ci xale yi li nga wax coach bu fekkee ne dëgg la te gëm naa ne dëgg la parce que quand même tu es bien renseigné. Mm-hmm. donc bu dee dëgg la wax dëgg yàlla. xaalis boobu bu duggee nañu bàyyi Babacar Ndiaye boobu mu continuer sereinement di gérer mm-hmm. équipe bi parce que kooku du baadoo la kooku garmi la parce que ku mën a def loolu jël sa alal jël ay xale di leen jox cent cinquante mille nga ne da nga leen bëgg a motiver mm-hmm. pendant autant d'années nga jox club bi dix ans pour mu dem Afrique huit ans nga yegg fa wax dëgg yàlla bu xaalis duggee saison son mérite ak méritu ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom staffam ak équipe bi. gëm ko bu kenn ñëw par extérieur par l'extérieur ci biir autour de Tëngéej et la zone coach man xaw ma. li ma wax laa ci loolu laa yaakaar dépendre pour wax li may wax ni ñu may ko jàmm mu liggéey normalement. Ah. ñu bàyyi ko xaalis boobu moom mu gérer ko parce que moom moo gérer équipe bi ba fi mu toll. d'accord dafa mel ni dafa mel ni xam nga yaa ngi wax ne que man dama xam mais yow dafa mel ni da nga xam histoire wu euh, footballu li nga wax ni moo dal GIA GIA bi mu demee ba étape bii. ñu ñëw di koy xeex ba GIA wàccaat. Euh, troisième division cinquième division. cinquième kay. ba cin omnandi ba cinquième division. <laughs> li ngay wax nii loolu la ñu def. et je pense que attention nag moom intellectuel la. Mhm. cadre la. très bien. waaw ci milieu pétrole bi lay liggéeyee. Ah, j'adore ça. dégg nga c'est un cadre cadre bu mag la. Mhm. xam na bu baax lu muy def. Mhm. <coughs> parce que c'est que dëmm yi si autour rek. xam naa xam nga waaw parce que mënul ñàkk. non loolu day day dañuy tiit après. dëgg la ah. commencé ñëw ci club. ku nekk bëgg a wax lii bëgg a wax laa. xam nañu bu boobaa. génnee ay affaire mais euh, en tout cas bu weesoo. Mhm. nga baal ma bu weesoo moom euh, le président ba Babacar aussi je pense que war nañ mën a dugg au sein même de l' équipe euh, joueurs yi. Mhm. et puis entraîneur bi Dabo moom aussi def na liggéey bu rafet parce que tey jii c' est pas évident. Mhm. nga nekk entraîneur ñaari équipe équipe nationale xale yi ak aussi club bi di di Tëngéej FC et puis démb aussi match bi c' était difficile parce que ñu ngi ko doon joué ci ci taw bi mënuñu. téye bal bi et xale yi aussi ah. jar na ñu ñu kiiwal leen bu baax. xam nga lu ñuy wax euh, euh, maanaam euh, dafa ci jargon footballistique bi gars yi naan xaru dañuy xaru. match bi mm. dañ koy xaru. Mm. ñoom dañ ko xaru. dañ ko xaru effectivement. parce que ci taw. bal bi du bi day tey tey tey tey rek la. du taxaw ñu taxaw fexe ba jéngu. Mm-hmm. ci équipe bu tool noonu ba nangam. daabo bi ngay wax c'est vrai daabo def na exploit joueur tam def nañu exploit. Mm-hmm. et l' tam ñi nekk ci encadrement bi yëpp ñoom ñëpp def nañu exploit mm-hmm. et que lii tey jii et dañuy def rek ñoom nañu wàll waa jaraaf tey tam jaraaf day joué mm-hmm. ku kaaf Abidjan tey tam ñu xaar ñuy ñaan yàlla jaraaf tam ñoo noonu amiin comme ça ñu am deux représentants ci phase de poule mm-hmm. waaye li ci am solo mooy dégg nga euh, tey jii tey jii Euh, maanaam boo dégg ay RFI ay nangam ñëpp di wax. Mm-hmm. lu ñuy wax Tëngéej dalal nañu tudd Tëngéej Sénégal. Mm-hmm. yóbbuwaat nañu image du Sénégal. Mm-hmm. ca kaw. Euh, coach man dama bëggoon intervenir si ñaari aspect rek si ñaari point pour fekk si leen si li nga xam mooy motivation bi nga xam ni euh, moom la ñuy xaar si si si si si président club bi wala bokk si lépp li nga xam ni si domaine bu nekk ah. tey damay jël jëm si yàlla kii feu Mawadou Wade. nekkoon na fi sélectionneur national lu yi lu ma fekkee la fédération moom benn otom la yoroon bi nga xam moom otom la bëgg mais bi muy ñëw réunion à Dakar euh, xam naa ne dañ naan oto bi bon war waru am waru dawal oto boobu mais biñ ko fédération yóbbu yóbbulee oto ak chauffeur chauffeur bi ñëw xaar ko ñun la fekk foofu sax euh, ñu ñu xaar mu yeewu ñu wax ko fédération moo moo kii moo moo la jox oto bi dafa leen delloo leen oto bi soxlawu ma oto joueurs yi ñooy nekk si bi motiver les joueurs donc dafay fekk si day fekk si motivation boobu tey bi may euh, match aller bi bi may koy déglu à la rajo laa ko doon déglu mais naar yi bi bi ñu match nulé euh, naar dañ doon jubilé. waaw parce que ñoom pour ñoom gagné nañu match qualifié nañu parce que bu demee dañuy dóor dóor yu metti quoi donc kon chapeau aux joueurs en tout cas ñu leen di féliciter encore une fois et puis euh, dañuy wax ne également tamit. Sénégal dañuy dafay ndànku bu ñu génnee si benn kii rek dañ naan ah alhamdulilah comme génn nañ si mais kii bi li nga wax dafa am solo nañ dem dem leen jusqu'au jusqu'au parce que loolu tamit dafa am solo. Mm. pour ngeen dem euh, ak étape bi nga xam ne xëy na amul benn club sénégalais bu fa mos ak en Afrique et c'est important. bugguma tamit euh, li may wax tamit conseil bi may joxaat waat ngay moom mooy bugguma tamit dégg comme loolu rek euh, ñu fi daan bu ñu daan. 2002 euh, amoon na benn wëy boo xam ne dañ ko def waaw bu fi yemoon mu neex loolu bëgguma ko dégg non non nañu dem nañu continuer jusqu'au bout ils doivent continuer se battre c'est possible parce que man mii man miracle la man loolu laa doon wax man gëw moo ne euh, c'est que c'est que ñi ñuy dem fekki ñoo ñu ëpp moyen mais comme que dóor nañ koo xam ne moo ñu ëpp moyen y a des dans le dans, dans le sport day am miracle yenn saa yi day am benn miracle waaw bi nga benn équipe bu ndaw doo ko miracle la day am day ka yow fexeel ba yow nga bokk ci kii di miracle boobu. Mhm. et c' comme ça. Mhm. donc le football aujourd'hui le football mu ngi yóbbu euh, euh, turu Sénégal fu sore. Mhm. de grâce. mais coach. Euh, Ayuso tout à l'heure dafa wax lu am lu am importance euh, euh, genre nit ki liggéey ba egsi fi mu egsi am ñoo xam ne dañuy bëgg a ñëw enki moo yëf yi tey jii nii bon man xaw ma peut-être yow yaa ma gën a xam euh, information yooyu lu dara ñoom li ñu li ñuy gagner en terme d'argent fédération dafa am lu mu ciy amul non non. du si am dara ñoom ñooy moom ñoom ñoo moom seen xaalis amul kenn na moomu ko. ok ñoom ñoo seen kees lay dugg directement. ok euh, euh, affaire kaaf day jël xaalis bi. Mhm. Euh, laaj leen ñoom seen compte am seen compte ñu ne ko li ñu dugal ko foofu. duñ ko jox sax fédération. du fa jaar ñoom ñoo moom seen xaalis. c'est à eux maintenant de gérer. Mhm. mais c'est que li may bëgg li may bañ li ma leen di bañal mooy li nga xam ne amoon na fi ay club. am ay euh, maanaam ay ay ay ay xaalis. Mhm. xaalis boobu après comme ni Aliou di wax. Mhm. kii xëtt fii kii xëtt fii kii xëtt fii. Mhm. xaalis ba demee noonu. d'accord non nañu structuré euh, début de structure la. début la pour structurer. d'accord jërëjëf man danga maa def. jërëjëf. jeex na Macky Sall dafa dafa leen waroon dafa leen waroon dafa leen waroon encourager jël benn somme d'argent. fonds politique bi nga xam ne moom la yor parce a quand même huit entre huit ak dix milliards mais xaalis boobu par at la koy am war na mën a jël ci xaalis boobu encourager xale yooyu ndax ñu développer seen seen stade bi développer seen kiiwu staff technique bi am matériel nécessaire xale ñu mettre leen ci ay conditions ba nga xam ne sa serait encore davantage encore. d'accord comme yow lu jeex ngay bañ merci beaucoup au moins benn 100 millions ñu bàyyi la nga daal di bravo voilà Tëngéej bravo. félicitations les gars. waaw félicitations amoo kenn koy nuyu. Euh, Clédor Fall. Clédor Fall. hey la hey la la. xarit bu bees la xool. waaw waaw waaw moo ma ne waaw. ma ne Clédor Fall Jakarta. Ah. na ngeen noo bi yee eh, Aliou Seye. jàpp leen noo bi. ok Clédor Fall. Jakarta. Clédor Fall Jakarta ah. suñu xarit bu bees la ñu koy nuyu bu baax a baax. waaw ah, waaw Adama Ndao demante aussi nuyu ko ñu daal di ñëw léegi léegi daal jëli suñu rubrique.